fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul yow mi bi ñu leen baaxoo andil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiqam seen mbokk Saliou Sy di leen ko defal tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba te mooy wéyale soññe yi ñu doon def fan yi ci solo xam-xam ak eh, yitte ji nga xam ne nii Serigne Touba sunu yaakaar joxoon na ko xam-xam ak eh, soññee gim ci soññee ak digle gim ko digle ñu dem sàkku ji ko Euh, xam-xam dafay lu mënta ñàkk ndax bu ñu xoolee lislaam it bu kenn masaana ñëw dugg ci lislaam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di njëkk wax ca moom mooy faqihu aqaakum haza fi diin jàngal leen seen mbokk mii diine yee leen ko ci diine kon jàng dafa mënta ñàkk daa mënta ñàkk bu ñu xoolee xare xare ba dara yi yi ñu jàppoon ci xare ba Euh, te ñu doon ñu bari joo xam ne dañoo doonoon ay jàngkat yu mën a jàng bokk na ci condition yi yañ leen tegoon ne ku ko ci lam ku ko ci remplir ñu libéré la mooy nga jàngal nàngam ci jullit ñi bañ fer ijji ba mën a liir nga xam ne ku ko def ñu doog laa libéré ci Madina al Munawwara kon xam-xam lu ama am solo la lu mënta ñàkk la tamit ci lislaam moo tax Serigne Touba sunu yaakaar soññee ci bu ñu demee ci irwa un nadim téereb Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana euh, am na mbind mu fa Sëriñ Tuubaa bind ay laabire yoo xam ne nii ci murit yëpp la ko jëmee yu góor yi ak yu jigéen yi bu ñu demee ci irwa un nadim page 33 dañu fekk Sëriñ Mamadou Lamine Diop Dagana di indi mbindum Sëriñ Tuubaa di wax ne innahu minni ila jamiil muridina wal muridaat salaamun tayyibun ya'simul jamii'a minal maridiina wal maridaat wa yudxilal jamii'a fi salaamati wal aafiya fi dunya wal aaxira bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak amma baadu fa inni amartu kulla man taallaqa biya li wajhillahi taala alkarim bi taallumi alxaqaidi wa tawxidi wa axkaami altahara walsalaati walsiyaami wa xayriha min kulli ma yajibu ala kulli mukallaf wa inni takallaftu lakum wa lakunna bi tawaali fa yakunu fiha jamiu dalik li wajhillahi taala alkarim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh daf caa wax ne lii mi ngi tukkee ci man Serigne Touba mi ngi jógee ci man jëm ci mboolem murid yu góor yeeg yu jigéen yi maa ngi leen di nuyu nuyu bu teey di leen ñaanal yàlla musal leen ci pexe yi marit yi muy fetteerlukat yu góor yu jigéen yi te it yàlla na leen yàlla tàbbal ci jàmmam ci aafiyaam àdduna ak alaaxira ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw nuyoo bi ak ñaan gi nag maa ngi digal képp ko aju ci man ngir jëmmi yàlla mu xam lu ji ay farataam li nga xam ne ni mënu koo ñàkk xam mu xam ko lu jëm ci wàllu tawxiid ak attey laab ak julli ak koor ak yeneen yurut yooyu te mu aju ci lislaam ci lépp loo xam ne mu kàllaf da ko war a xam maa ngi diggal ko aju ci man mu xam lu ji ko daal ne man nag war warlul naa leen yenn murid yu góor yu jigéen yi ay taalif yoo xam ne ni da ngeen ca fekk yii yëpp te loolu def na ko ndax bu ñu xoolee fukki téere yi wala fukki téere ak benn wala juróom-ñeenti téere niñ koy waxee ay tasawuru sixaar ak subbaan nax joog jawhar nafiis ak ak yooyu yëpp euh, darañ ca fekk xam-xam yi mu wax yëpp mu doy ca sëkk kon moom la mu waxoon def na ko kon ñun ñoo ci des kon nag nañ farlu te dem jàngi te xam bëggu Sëñ Tuubaa ñu koy def ñëpp mënuñoo doon ay kaang waaye nag kenn ku nekk war ngaa mën a fer i ba mën a liir alquran ñëpp mënuñoo doon ay fóore waaye kenn ku nekk war ngaa jéem a dañu ko réer ci xam-xam ci farata yi nga xam ne ni yaa koy defal sa bopp bu ko defee nag am na ñoo xam ne moom Eh, ay benn benn ñooy géeju ci xam-xam doon ay géej lu waaye xamut laaj la waaye nag am na loo xam ne ni kenn ku nekk da nga ko war a xamal sa bopp nga xam ne ni mooy le minimum lu mënta ñàkk kenn ku nekk war na ko jéem a xam kon nag nañ góor góorgóorlu te farlu bu baax a baax ñoo ngi siyaaraat ñëpp di talalaat loxo ñëpp ci liggéey bi nga xam ne nii waa daara xikmatul mi fas nañ ko ñoo ngi koy fas yéenee gën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci lépp jëm ci xam-xam eh, jàng ak jàngale Euh, te wax dëgg yàlla am mbokk yi ci tàmbalee dugg ak di ci jàpp itam ku ci bëgg ay leeral it nga woote ci 77 633 77 56 77 633 77 56 xikma nag day tënku yaa koy tinki ngir jariñoo ci rajo day sekki moo tax ma naa wuy la te wuy balaa jariñ nga toj ko jot ca buy ba buy baa lay jariñ kon wuyu wi ñaw na gaañi kaay leen toj ko bañ mën a jot ci wuyu bi ñëpp tiim ko ñii màcc ñii notari ñii njëmbaan ko ku féete woon naa nit na ngeen seggal ko in uridu illa al ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala